yàlla dootu nangooti ñaanam bu lekkut lu dagan war na it pour doomu aadama am kattan di def lu baax foofu muy lekk lu dagan ndax lu dagan ak jëf ju baax dañoo lënkaloo lekk lu xaraam jaamu yàlla daf koy të an abi hurayrata jëlee nañ abu hurayrata radiallahu anhu yàlla na ko yàlla gërëm qaala wax na ne qaala wax na rasulullahi yonent yàlla bi sal yàlla dol ko allah alayhi wa sallam dol ko musa yonent na inna allaha taala kawe na aji teey la laa yaqbalu du nangu illa tayyiban lu aji teey yàlla lu teey la <clears throat> du nangu lu moy lu teey loolu waral lépp lu yàlla xaraamal rekk dafa teewut doomu aadama nag ñaar laxam xam ak jëmmam lépp lu yàlla xaraamal benn muy lor ruuxu wala muy lor jëm moo tax yàlla xaraamal ko benn njariñ nekku ci si njariñ nekkoon pour yow kon yàlla daf koy daganal mooy lor moo ci nekk pour yow <clears throat> yàlla nag ku teey la bëggul ci jaam yi lu mooy lu teey loolu rek mooy wax ci moom ci boppam teey na ba pare kon yow boo defee lu teeyu di sa bopp koy def parce moom mënoo ko euh, dugal ci moom loo xam ne nekkul fa moom tey na ba pare moom borom bi subhanahu wa taala ku tey la na bëggul ci jaami nag lu may lu tey loo may laa yaqbalu illa tayiba moo tax ku jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne ni yàlla santaanewut ko noonu du ko du ko nangu parce que loolu wut lam tëral mooy lu teey moom mooy ku teey lam tëral di lu teey boo fa teggee lam tëral nag mënoo dugg lu mooy ci lu teeyut loolu du la ko nangul maanaam bëggul loolu soo ko defee musiba rek nga ci jële <coughs> yàlla ku teey la bëggul lu mooy lu teey wala na laa naka yàlla <coughs> amara digal la almuminina jurit ñi bi ma amara ci lam digal bii ci moom al almursalina yonent yi li war yonent yi loolu rek moo war jurit ñi nga léeg-léeg nit wax ne man que daf maa ëpp garaat ab yonentu la man duma yonentu déedéet yonent bi sallallahu alayhi la ko yàlla sant mu di ko def loolu la la yàlla sant dafay sa roykaay dara lu mooy nit koo xam ne nii mooy exemple bi nga war a roy <coughs> boo ko royit koy roy laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana yàlla nee am ngeen royteef bu rafet ci yonentu yàlla bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam mboolem yonent yi suñu royukaay lañ dañuy xool ñoom ñu doon dundee dañ doon fàggoolu dagan dañ doon moytoolu xaraam la leen yàlla sant ñu xam ne ñu nit yoon wóor ñu war a jaar jaamu yàlla topp ndigal yi bàyyi tere yi la yàlla digal yonent yi moom la digal mbooleem ñu gëm mbooleem ñu gëm ku def la daan yonent def rek dëkk ak ñoom yowmal xiyaamati di soppe bi yàlla it fa qaaloona taala yàlla mu koy mu ne yaa ayyuha rasul yéen yonent yi ku loo lekk leen mu ne tey baati ci yu teey mooy yu dagan bu ngeen lekk lekk leen ci lu dagan yi <coughs> loolu nag làmboona ñaar yëpp làmboona def leen lu baax làmboona lekk leen ci yu dagani fii nag ci yonent yi daf ne yéen yonent yi lekk leen ci yu dagani ndax yonent yi ñoom seen ruuxu duñ ko dundalee mukk lu xaraam ñoom yàllaa leen xaar moo tax tegu si waamalu saa leen def na si xadis bi hmm? waamalu saalihan def lu baax loolu la ñaari maqaam yi ñëw lekk leen ci yu dagani ngeen def lu baax jëmm ji mooy lekk ci yu dagani def lu baax mooy dundal ruuxu gi kon ruuxu gi ne lekk ci yu dagani tamay mu def lu baax jëmm ji mooy dunde matière yi na lekk lu dagan yaa rasul kulu min teebaat wa amalu saalihan wa amalu saalihan nag moom yonent yi moom foo ñu def ko yàlla leen bindee noonu mais ñun war nañ leen roy ci wa amalu saalihan yéen yonent yi lekk leen ci teey yi mooy seen jëmm na lekk lu dagan bu defee seen ruuxu na def lu na ngeen def lu baax seen jëmm mu dundalee ko ruux gi jëmm jiit na lekk loo xam ne lu dagan la lu tax yàlla lëkkale lekk lu teey ak jëf lu baax mooy doomu aadama bu lekkee lu teey rek mën a def lu baax <coughs> jëmm ji bu dee la ko dundal lu teey la kooku jëmm la joo xam ne yàlla mën na koo nangu boole ko si soppeem ak ñi nga xam ne ni ñoo koy liggéeyal su boobaa dana mën a def lu baax su defee lu baax nag ruux gi dundee dund googu lii yàlla xitaab la wax ak yonent yi waaye boo xoolee ñun ñoo ko moom ndax yonent yi lañ leen digal ñoom ña ca lañ leen tere it <coughs> danañ ko baax mais yàlla ñoom la ko njëkk a digal door ñu ko digal ñun loolu ne ko digal lekk leen ci yu teey te ngeen jëf lu baax soo lekkee lu teey sa jëmm jooju la ko dundal lu teey la comme que la ko dundal lu teey la nag jëmm la ju yàlla di liggéeyal yàlla jëmm la joo xam ne yàlla mu nekk soppeeb yàlla ndax la ko dundal yëpp lu baax la su boobaa dana mën a def lu baax jëmm joo xam ni teewut lu xaraam lay lekk ba màgg dooleem yëpp doolee lu xaraam la ndax jëmm jooju yàlla na pour nekk dugg ci pay bi yàlla ba déedéet yàlla dafa tey du nangu lu ma du tey da nga ci déggee ne boo lekkee lu daganut doo mën a jaamu sa borom ndax yàlla soxla soxlawul la dafay bàyyi nga nekk soldaari iblis yi parce que sa jëmm ji jëmm ji woon la yàlla na seen yàlla musal tax mu ne yéen yonent yi lekk leen ci tey ngeen def lu baax waaye yonent yi lañ soxla mooy la dundal seen jëmm ak la dundal seen rox loolu moom ñu ngi ca fa qaala taala yàlla ne yaa ayyuha allazina amanu yéen ñi yàlla kulu lekk leen min tayyibaati maa razaqnaakum ci yu tee yiñ leen wërsëgal lu mu ci teg washkuru lillaahi dafa mel mu topp ci laay ji kulu min tayyibaati maa razaqnaakum washkuru lillaahi na ngeen sant seen borom in kuntum iyyaahu ta'buduuna bu dee moom rek ngeen di jaamu dégg yéen ñi gëm yàlla yéen lekk leen ci yu tee yiñ leen wërsëgal lu ngeen amut bu leen ko sàcc bu leen trian bu leen naxante la leen yàlla wërsëgal xem leen ci loolu ngeen lekk ko ni yonent yi war a lekkee lu dagan noonu ngeen war a lekkee lu dagan su leen yàlla mayee nag seen jëmm yi lekk ba suur na ngeen ko sant sant ko mooy ngeen dem jëf jaamu ko wa amalu saalihan mooy nekkaat foofu rek shukru amalu ala daawuda su ngeen lekkee ba pare dem leen sant yàlla mooy ngeen jaamu jikko Hmm? kon yàlla dafa digal yonent yi ñu lekk lu teey te jëf lu baax noonu la digal nit ñi ñu lekk lu teey te jëf lu jëf lu baax ñun nag mën nañoo lekk lu teey lu dagan waaye ni ñu war a lekkee lu dagan suñu yaram noonu la ñu war a lekkee lekkale lexalee ruux gi lu lu teey te mooy ñu jaamuñ suñu borom ñun mën nañoo ñàkk lekk lu teey mooy di dundee lu dagan waaye nañ xam ne suñ ko defee yàlla du ñu nangu pour ñu nekk jaam yi koy liggéeyal parce que ñu yàlla jégal boppam mooy ñu sell ñi parce que moom dafa sell kon du nangu lu mooy ku teey loo ci déggee suñuy dundee lu xaraam yàlla soril ñuy boppam suñuy sorilee suñu bopp roo gi du mën a dund du mën a dund lu lu dagan lu lay day ay lëndam mooy muur ruux gi rek ba ruux fàtte yàlla su ko defee nag lan lañu tabax si ñaari xaddis yi mooy doomu aadama bu dundeewul lu xaraam ñaareel du man a def lu baax te su dundeewul lu xaraam lu baax te ko ay problème dana wàcc ci kawam ak ay jafe yoo xam ne nii dana ñaan yàlla ba sonn yàlla du ko faale parce que dundeewul lu xaraam dundeewul lu dagan lu xaraam lay dundee moo tax danga ñaan yàlla ba sonn yàlla du ko faale tey nag loolu moo fi réewu jullit boo dem dangay gis ñoo xam ne ay jullit lañ waaye xàmmeetuñ alal ju dagan ak ju daganut dem nañ sax bay wax ne alal kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti man ngaa gis léegi nit am ay milliards ci digg bu gàtt fekk ci ay njubla nga ak tappale rek ci la ko amee bu ko defee nag ngeen ne milliards yooyu na ci def lu baax na nekk nit ku baax yàlla soxlawut kooku parce que teewut booy dundee lu teewut yàlla soxlawut la du la tànn sa alal jooju xam nga ma nit ñi nga mën a nax mën ngaa am alal ju bari nit ñi jël la taf la seen bopp def la xarit fonk la yëkkati la loolu mën naa nekk mais alal lu caaxaan moom yàlla du la faale parce que teewut hmm. yàlla du def loolu nit nag man ngaa naxante ma am alalu caaxaan moom sax mu xam ne li alalu caaxaan la waaye mu bëgg ci alal ji intérêt tax mu yëkkati la loo wax mu ne waaw waaye yàlla loolu du ko def imagine léegi benn kilifa bu taxoon fii léegi ñaari nit kenn ki du baax di ku baax di jaamu ko ci yàlla di ku sel keneen ki moom dem naxante sàcc am alal ju mu ñëw mu jël ko fal ko sa kaw looy loolu jaaduwul yàlla du def loolu wala su nit naxantee ba am alal ju bëri ñu seetaan ko xamal na nit kooku yàq lay nekkee ci kaw suuf bu ñu bari melee noonu nag jamono dana bari ay musiba ak ay jafe-jafe te su boobaa danañ ñaan yàlla ba sonn yàlla du ñu faale commerçant yu bëri <clears throat> la fàggu mën naa teey mais fàggiwuñ bi yu si bëri du teey da nga gis commerçant boo xam ni danaan man diine commerçant laa yore guddi laay julli hmm? teewut façon fàggiwuñ bi teewut waaw xam nga maanaam si misaal rek boo doon lekk lu boo doon togg lu teey nga ganaar teey ganaar tee na même nu na koy toggee kenn du ko lekk façon toggin bi moo teewul mais jëmmi ganaar ji moom tee waaye di togg ganaar di ñendoog sa loxo yi salte ah ubbi cin bi microbe bu lu ne mën a dugg ci biir nga baxal noonu rek yàq génne nii day ma lekk ganaar booy liggéey te seetloo noonu la mel mooy yàlla yooyu taqala yooyu nekk ci yow mooy tax loolu laal du barke du am njariñ tooke lay doon ci yow commerce warul tax nga xaar ba guddi nga door a boole julli yëpp di ko di ko julleen doo da nga xam ne loolu ngay faggu teewut wala boog nga boole si loo xam ne wóor na la li nax naxante la tappale la jaay kër yi xam nañ ko wóor na la li tappale la nangam nga jëndee bi nga dem wax ne nangam laa ko jëndee ñu wax nga ne système baal tënk marché baal tënk système yàlla bi ak système marché bi bu ci gën a fort ngay nangoo système marché bi tënk te yàlla gën a màgg nekk fi bu nekk nga ne allahu akbar bu yàggee ngay naa fekk de allahu akbar mooy yàllaa gën a màgg ba pare nangu beneen système di la tënk te système yàlla bi nekk fi toujours nga ne allahu akbar yow kay bul waxati allahu akbar ne système bi <laughs> akbar boo gëmoo ne allahu akbar système yàlla bi moo lay tënk ci foo mën a nekk mm-hmm. loo ci mën a am nag nga xam ne lii la la yàlla sédd waaye bëgg alal ju bëri du tax nga topp système boo xam ne baaxut yow boo ko toppee keneen topp ko keneen topp ko keneen topp ko bu yàggee lu ñu defal yàlla bu yàggee ñu dindi fi sharia de naan système baa tënk moo taxit façon fàggunu yooyu ci fàggin yu bon yi la bokk bu fekkee loolu moo fees suñ marché yi moom la ñuy dundalee njaboot loolu la ñuy dundee bu yàlla wàccee natu suñ ko ñaanee ndax danañu faale déedéet duñu faale nga demati ci banque yi fële ñëpp dañ seen xaalis ribaar lañuy dund lewal la benn fayeku ñaar intérêt rek sa alal yépp ci banque nga ko jëlee dem leb banque ñëw liggéey di di teg intérêt faalewutoo yàlla parce que yow bëgg nga avancer rek da am sax loo dundee am lu ne gàññ sax teewul yaa dàq leb banque parce que kilifa diine yi sax du ñàkk léegi ñu am ñu leb banque waaw bu ñu waxee ñu ne système baa ñu tënk te pourtant am na ñu dundee kat bëgg ndoolal rek. su fekkee léegi jamono dem na ba mel noonu kan la yàlla nangootu ci ñun kenn parce que ñun ñëpp teewuñ dundeewuñ lu teey buñ dundeewul lu teey jëf lu baax jëfeñu buñ dundeewul lu teey jëfuñ jëfuñ lu baax problème wàcc su wàcce wàccee luñ ñaan yàlla yàlla duñu faay yonent yi nag ñoom yàlla daf leen digal lii rek lekk leen lu teey def leen lu baax waaye ñoom ñu ngi ca yàlla daf ñu bëgg woon ne yéen da leen war a roy moo tax lam digal yonent yi moom la ñu digal waaye ñoom li ñoom daa ñoom ñu ngi ca neexoon yàlla sax du leen ko digal parce que ñu ngi ci ñoom su ma zakarat topp yonent tudd arajula góor ba mu waxee lii yu tiilu góor goo xam ne mu ngay guddal ak safara tukki a chance góor gu cuxur bopp ak bar góor gu pënd yaram يمد من يتلل يديه نيار لهم إلى السماء جمت سمان نان يا ربي يا برم يا ربي يا برم وما تعمو تلمي دندي تنيمم وما نيمم حرام وحرام وما البسو لمصل بوكو خولي حرام وحرام وغزية تدن لين انكو بالحرام يتي على الجحرام برن يغيس التكسين فم دك صدف حرام. Hmm? wa wa mashrabuhu naanam xaraamun lu xaraam la wa malbasuhu te lam sol xaraamun lu xaraam la bu la neexee ma ne nga teg si ne fa dëkk sax dafa xaraam wa xusiya te dundalee nañ ko bil xaraam yi ci alal ay yaayam ak baayam sax alal lañ ko nàmpale moom mu màggit continuer ci alal di ko dunde di ko naan di ci sol di ci dëkk yàlla nee na fa an naa yustajaabu nan lañu nangolee lahu ñeel kooku nu ñu nangoo ñaanam lii dafay wax ne xeet wuy dundee lu xaraam danañ ñaan yàlla ba sonn yàlla du leen faale buñ demee ba sonn ba jaaxle buñ weedu ci kenn ku dul yàlla ndax yonentu yàlla daf ñu waxoon ne yàlla nee na yonentu daf ne taarraf ilallahi fi raxaai yaarif ko fi shidda bu yombee xamal yàlla bu ko fàtte ndax bu jëfee yàlla man laa xam waaye mu yomb nga fàtte yàlla di lekk lu xaraam di naan lu haram di def lu la neex nga bëgg ne bu jafe-jafe ñëwee yàlla dina la bàyyi xel moom it dara boo ñaanee du la faale li ngay gis yàlla nag moo gën a am ful la ñëpp de moo tax wax na ne ku bëgg a dajeeg yàlla yàlla bëgg naa dajeeg yow ku bëggut dajeeg yàlla yàlla bëggut dajeeg yow am fulu de buur bu baax la nag waaye ni mu baaxee noonu la mbugalam tatee te dafa bokk ci lam ñu jàngal ne ku koy def ma danga nga dajeeg te boo dajeeg mbugalam boo ñaanee du la li ëpp mooy lii di dundee lu xaraam soo ci nekkee bu musiba ñëwee mboolem sabab yi waral nangu ñaan bu dajee séewit boo ñaanee yàlla yàlla du la ndax xadis jàngal nañu ne ñaanab kuy tukki yàlla daf koy nangu kii ci tukki la nekk am na sabab buy waral nangu ñaan ñaanab ku cuxur pënd kooku kuy toroxlu la ku toroxlu yàlla mu tar la ku loru amma yujibu du'a al mutarri ida daaw ku loru yàlla daf koy nangul ñaan kii loru na mu ngi ci tukki tukki mu sori te sax borom xam-xam yi tukki kese la de tukkim jihaad la dafa tukki ngir jihaati wala ngir xaji wala ngir ziyaare lu baax tukkim kuy jaamu ji yàlla la nekk waaye la muy dundee dafa xaram ndax yàlla faaduwul jaamu yàlla mi kon boole na nekk ci tukki tukki rek barab bu nangu ñaan la ñaanam kuy tukki yàlla daf koy nangu boole na toroxlu ci tukki moo xam ne tukkim jàmm yàlla yàlla faaduwul ko mu tàllal loxo mi te yàlla wax na ne yàlla ku am kersa la ruus na jaam di tàllal loxo yi muy delloo ñaar loxo yi jàmm bi di sooy kii nag tàllal na ñaar loxo yi naan yaa rabbi yaa rabbi te yàlla ku ku ku tudd turam mu tudd la kii tudd na tur yàlla xoo ko nag yàlla yàlla dafa ne eh, aji uji eh, uji bu daawata daai isa daani se jaam bu ma xoo ma ma ma nangul la kon yaa rabbi yaa rabbi bara bu nangu ñaan la yooyu yëpp mu ngi koy wax yàlla ne nan laa koy nangulee ñaan talan lam la muy dund ñamam bi dafa xaraam la muy naan wa mashrabu naan waayam dafa xaraam la muy sol dafa xaraam ween wi ko yaayam nàmpalee sax soo mu xaraama fa nekk kook nu ma koy nangu la ñaan léegi ñun ñu yaakaar ne mën nañoo jëflanteeg banque bi ñu yaakaar ne mën nañoo wutee xaalis nu ñu neexee ñun ñu yaakaar ne riba mën naa dugg ci réew mi nu ko neexee ma ne waxuma la sax commerçant yi nangam de mais réew mi sax xaalis ba ñuy leb di ko dugal ci biir réew mi. day am riba banque yi dañuy lebal réew yi carrément xaalis boobu moom la ñuy tabaxee réew yi suñ lépp riba la foofu ndax kenn dafa ñaan yàlla yàlla nangu ñoo xam ne ñoom ñëpp riba lañuy lekk seen président ba suuf dañ tàllal suñ loxo di wax yaa rabbi yaa rabbi ba sonn yàlla du ñu <laughs> ñu faale kon doomu aadama yonentu mooy royukaayam boo gisee yàlla tudd yonent yi sant leen lekk leen du teey te ngeen def lu baax te wóor na leen ñoom bu leen neex bu ko neexoon sax du sant def leen lu baax ndax danañ ko def daf ñoo bëgg war ne yonent amoon nañu ñàkkoon te taxutoon ñu dugg ci lii ngeen dugg kon roy leen yonent yooyu su ngeen ñàkkee ngeen lekk li ngeen am yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demoon na ba xiif di takk biir bi loolu defut ko rek par hasard daf koo def pour won xeetam ne ñàkk warul tax ngeen di dugg ci lu xaram daan wax na ne wërsëg bu yéex bu mu leen taxam mooy yàlla li nekk ci yàlla topp ko rek ci ngeen ko mën a ame wërsëg bu yéex bu la mooy yàlla it du tee waroon am rek ngay am waaye dana ànd ak yàlla jéppi la ba ko ñaanee du la du la faale kon xadis bi mu ñuy ñaax ci ñuy lekk lu dagan di naan lu dagan di sol lu dagan di ñaax waay juri ñuy dundee lu dagan ndax bu ñuy nàmpal seen doom nàmpal leen soomu dagan si di day wàlle yow mi nàmpal xale bi ngela yërëm ko bu ko nàmpal lu xaram kon kenn ku nekk na lekk lu dagan lu sell loo xam ne amul benn lënt bu ci bu ci nekk daam jaam nag suy lekk lu dagan yàlla daf koy dimbale muy man di def lu baax di man di jaamu boromam yàlla mën a nangu jëfam ndax yàlla du tànn ku teewut kuy dundee lu xaram di ko def liggéey katam moom suy lekk lu bon loo xam ne daganut musiba lay doon ci kawam rek toujours muy am ay problème yàlla dootu nangoo di jëfam su jaaxee ba jaaxle dana ñaan yàlla ba sonn yàlla du ko yàlla du ko faale moo tax yonent nee na tudd na góor goo xam ne moom yonent bi mu ngi cuxur cuxur rek looru la looru rek sabab la pour yàlla nangu ñaan mu ngi ci tukki tukki rek sabab la pour yàlla nangu ñaan mu ngi tàllal loxo yi yàlla rus na jaam di tàllal loxo yi mu di ko delloo waaye kii moom rusu ko ndax dafa bon bopp mu naan yaa rabbi yaa rabbi yàlla faalewut ko lu tax faalewut ko ndax ñamam dafa xaraam la muy naan dafay xaraam lu muy sol dafa xaraam léegi loo xam nag si koo xam ni moom mbiru àddina rek la nekk jihaatut ajut defut dara mbiru àddina lay nekk wala sax moom toujours mu ngi tooñ jaami boole kook dundee lu xaraam kooku bu tàllee loxoom ñaan yàlla loo yaakaar yàlla du ko faale du nangul ñaan teewu nag mën na seet ku ko neex ñaan mu nangul la waaye daal li ëpp bu ku mel nii moom li xadis bu wane mooy yàlla du ko du ko faale du ko nangul ñaan yàlla incha allah musal xadis ñëw na ne léeg-léeg nit dana pënd cuxur bunt bom mu dem ñu ne ko aywa ci bitti te lu mu wax yàlla def fii xadis bii wane na nit dana cun euh, pënd cuxur ñaan yàlla yàlla du ko faale kon mbir mi du si pënd ak cuxur si jikko la mën nga gis ku cuxur pënd fekk wala yàlla lu mu wax yàlla fii moom war na ngaa gis ku cuxur pënd fekk noonu bi yàlla la lu mu ñaan yàlla du ko Hmm? kon mbir mi du ci cuxur du ci pël du ci set du ci dara yàlla mooy tànn jaamam bu ko neex melokaan bu neex yàlla rek mën na ko melal jaam boobu kon xadis la boo xam ne daf ñuy sant ci ñuy lekk lu dagan même bu dee ñaar dërëm la <laughs> ndax bis dana ñëw ñu bàyyi ko fi lekk lu dagan loolu dana ñu dimbale yàlla tànn ñu dugal ñi ci PM bool ñi ci ay liggéey katam te su boobaa loolu dana ñu dimbale ñu mën def lu baax su boobaa dana tax saa yi ne yaa rabbi rek yàlla jox ñu lañ koy lañ koy ñaan waaye buñ mànkoo àddina yëpp di lekk lu xaraam kenn waxut loolu moom xalaatuñ ko tuub sax léegi gis nga tuub yi ñuy wax nii li ngay gis tuub tuub lu xaraam bokk guddi de déedéet kenn xalaatul tuub ba toj banque yi jàpp nañ léegi àddina bi système bu xaraam lañ mën a dunde pour ñoom banque yi yahudi yaa ko fi indi pour lan pour lekkloo jullit ñi alal ju xaraam force luñ ñama am doole ñun jullit ñi jéemuñ ci dara jullit ñi yàlla may leen doole de ñoo jéemut système boobu noonu pare wuñ pour dindi ko fi kenn pare wuñ pour dindi ko fi بول وينج جتوبك غانك لوم نيو نيو يو جولي بنا نقد يو سيستم بوب بوتي مون بخي نرا نقد بوتي مون بخي نوما ديف بوم دنج فينا نفي دنج سيني مون ييني بوب تي غور غور تي دغان امانو سيني ناني يالا نيو فالح إن أريد إلا الإسلام ما وما توفيقي إلا بالله يعني توكلت وإليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث بيرا نتلنكم مسلم إمام مسلم